ginnaaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu yeesalaat sunu moom ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ko jaarale ci sunu bopp ci Serigne Touba ak mu Cheikh Ahmadou Karam ak di ñaanal seen Muntaxa mu yàgg fi lool tawee ak Seydina Abbas ak njaboot borom Daaru Muxti gépp waaw ku xam Daaru Muxti nag defe naa même bu ñu tawee ci colloque bi war te jaaxal kenn ndax Cheikh Ahmadou Karam Mbacké moo ñu meññ Seydina Ousmane meññ ko borom Daaru Muxti meññ ko Soxna Abi Mbacké moo ñu meññ Serigne Mbacké Kanta meññ ko borom Daaru Muxti meññ buñ fi teewee lu yell la lu bare loolu lépp ñu jaayante ko fas yéene doon ay taalibe ay jam-jamatu kon ñu teew fii ci Méridien Président amal fi kolobu 75e euh, édition fas yéene cee jëm le 21 avril incha allah magasin bi nag ñu ko yàgg di defee ca diggante alxuraan ak kasaay ak bernde xamle kan mooy borom Daaru Muxti ak digganteem ak Serigne Touba xam ne borom Daaru Muxti maanaam moom mooy dafay piyee yoon wi maanaam te yoonu murid dafa am loo xamante ne nii dafay mel ni néexutal waaye bu accès fii c'est grâce à Cheikh Ibrahima Fati ndax ba dem Ndar di di jafe lool ca la fa bi ko bi tamit bàyyi koog njaboot gi ba mu dellu see gis na ni mu yokkee naar yi gis na ni mu yokkee ndongo yi gis nañ ni mu yokkee seex yi ba tey nangu woon bind lenn luy nuru téere ndax li ko teel gi daan nekk ci xasida yi te moom borom daal wax ti Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ko jàngal moo ko yar def ci moom li mu war a def ci moom lépp ba wëlbati ko rafaatin ko njabootam mu yar ak njabootam jàngal leen ba lépp loo xamante ne bii nekk na ci ñoom rek moom borom daaru moo ko ci def kon nag defe naa dafa jot ren donte yàgg naa jot sax waaye lu nekk waxtu bi kulli shay'in ajal ñu ni bu ngeen seetloo ci réseaux sociaux yi ren maanaam foo tourné ñu ngi bind ci statut bi xam ne ceeb jot na kon nag mu mel ni nag ku ko waxoon ne ko boo cëroo da ngay ñëpp dañuy xeeb seen ceeb kon nañu mujjee cëru mu mel ni nag dañoo dugg ci euh, dernière phase bi nga xamante ne bi nii cëru borom daal ma ci loolu moo waral ci teewaay. waaw euh, lépp lu ngeen gis ñu def ko rek dafay fekk ñu am ci ndigalu sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla luñ safooy safooy safooy te amuñu ci ndigal rek day sooxee duñu ko def nekk ko moom daal moom ci moom dëgg yàlla xam nga woon ko peut être ne lu ñu defal Serigne Touba rek borom ci lañ ko defal moo tax ca wayewa sax ngeen gisee ci màggal Touba gi ci tëjul wayel fañ ko tëjee borom daal waxtu la mooy la ko si Moussa Diouf ne ko moo njëkk a suuf moo njëkk ci baatin googu bu ngeen seetlu moom lañ tëjee weñ bi kon loolu ba tey nit ñi koy def di ko waajalee màggal daal kon yaakaar nañ ni lépp loo xam ne def nañ ko ci ku tedd ki rek màggal Touba mooy law ba màggal daaru ndax seen diggante six mois la ndax bu ñu bëggee def benn ci màggal Touba def benn ci màggal daaru yenn jamono dina ñëw ñu def ko waaye bu ñu ko defee nii day mel ni mbir yi day ñaar te mbir yi day leen waaw nag liñ bëgg a wax ci borom daaru ci bari na bari koo xamante ni bi lu ñuy waaj lay doon lu ñuy jël suñu suñu temps loolu lay doon pour ko melodi bu kéemaan ginnaaw buñ ci amee ndigal bu ci Aliou Karamba